lamahu wa ajaabahu ñëw tiim ko wax ko lam ko kaddu génn tontu ko mu ne ko anta abul fityaan rudd ala hada almiskini rasa maalihi gaa ñi baax nañ mais yaa leen sut miskin mi capital sim amoon delloo ko ko ah capital bu toll iman amul alquran waaw waaye joxel miskin mi fa qaala bi charti tawbati kàddu gi yog ci bàmmeli noppeegul de bi charti tawbati ci condition na tuub de fa taaba wa radda alayhi rasa malihi bam rëccoo tam wér rek fàttaliku alquran ja fàttaliku gëm yàlla ga ça summa qaala wa axbarani cheikhuna channawi anna shaxsan ankara xudura mawlidi sayidi ahmad al badawi fa suliba imaanahu fa lam takun shaaratun minhu taxinnu ila l islaam kii moom gàmm ga ñuy def rek ca badaw yi ci ahmad badaw yi gàmm ga fu nit ñuy def rek mawsim booba moom la weddi di wax rek toog toog ñu rëkkéeb ku gëm yàllaam amul benn shaaratu mu ne ci moom benn kawar buy jàng jëm ci lislaam mu ne mu gaawantu fastaxaasa bi seydi ahmada mu dem dem xettlu ji ci cheikh ahmad badawi fa qaala bi charti an la taud da nga amaat jàmm nag bu ca dellu de la taud fa qaala naam fa rudd alayhi sawbu imaanihi bam ne naam te wuy dëgg malaanam gëm yàlla mañ ne woon ñoret dellu si ku gëm nekk ci yow da ko xam man dama teseeg Mor Ndaw wax naa leen ko benn bés fii Ndaw dafa doon jàng suñ daara daara Baye Laye Niass maa ngi ko daje moom foofu ci wetu pharmacie Médina bi boobu pharmacie Madame Cissé mu ne baram Baye Laye ji daf ne woon naa taxani taxani yu ma ci jàquma xam nga kooku il la plus de respect pour Baye Laye ji ma ne ko ah taxani yu ma daa koy waaye ma ji lay boo ci saxee léegi ngeen daal ji mais yàggu fa dafa def reconnaître autorité borom daara ji fa qaal bi charte an laa taud fa qaala naam fa rudd alayhi sawbu imaanihi summa qaala maada tunkiru ma ne ko ay ma ne ko yow lan lan ngay linkaar ci gàmmu gi qaala ixtilaatu rijaali bi nisaa yi gàmmu la mawsum la boo xam ne jigéen ñi góor ñi dañ fay jaxaso fa qaala saydi ahmad boobu mi ngi dund dalika waaqiun fi tawaafi walam yamna minhu ahadun mu ne ko doom boo ajee màkk bu ñuy tawaaf góor ak jigéen la te kenn aayewu ko nit ñi seen xel yi nekkuñ ci góor ak jigéen lañ dañuy wër kaaba gi qaala ixtilaatu rijaali bi nisaa fa qaala saydi ahmadu dalika waaqiun fi tawaafi walam yamna minhu ahadun wa qaala al yadaali ponk la mu nekkoon gànnaar ci tasawuf kéem daal la naaqilan an ibni hajar loolu mi ngi ko jëlee ci ibnu hajar al haytami wala asqalaani ñëpp kéemtaan lañ mais haytami moo sara moom buxaari wa wa fii moom moo ne wa fii ma aala ilayhi amru nafari salaasati alladina zaaru lgawsa akbaru zaajirin wa ablagu raadicin an al intiqaadi ala al awliyaa mu ne kooku moo ne ñetti nit ñi demoon di ziyaare ji xaws la leen dal ci seen mbir moo war a gën a jàjj képp kuy jàjju pour nga moytandiku critiqué wàllu yow wa nafru salaa sallam mu ne imaamu tariqati Seydi Abdul Xaadir Jilaani la woon boobu yow may wa ibnu Saqa Abu Saïd Abdullahi ibnu Abi Asrun saq imi saqa ak nag kilifa googu ci ngiram Shafii ibnu Asrun mu ne wa qissatu mashhuratun la nutiru biha qissa bi dafa siiw diñ ci guddal ci gàttal ñoom dañ ne woon dañ koy seeti ñaar ñi ku ne ne da nga koy poser ay questions discuter ak moom ba xam ci lu mu ne Abdul Xaadir Jilaani ne leen bu leen ko laaj bu leen discuter nañ ko ziyaare ngir yàlla moom xale la ñu dem rek bañ ne salaamaaleykum rek mu ne <laughs> am na ñu doon seeti ah kii yooyu ku nekk naan dama koy laaj nii ko yow gis naa la nga kii yow ku nekk mu wax la fa ngay mujj Abdou Khari mu ne ko yow gis naa la ci Bagdad nga naan suma xadam bi mi ngi ci loosu bépp waliyu yàlla kii ñoom ñëpp ibnu kii la muy ci sax bàyyi tudd na ko feneen ci teer bi dem kay ci ab sëriñ demal pour mu jàngal la wala nga bala mu ñaanal la wala ah, wala sax nga def tourisme sax gis nit ki nit ñi fonk lan la waaye dinaa dem dina xam wa man waqaa fi irdi waliyin wa lam yuaajal bi musibatin falaa yuxkamu lahu bisalaamati min intiqaamillahi minhu masalaango nee na ku tooñ nag wali yu bàyyi dugg ci daram wax ca def ca lu ci warul te amoo ci saa si musiba mu la dal du tax ñu ne mucc nga déedéet mucc nga ci feyew kum yàlla mu ne déedéet fa qad takunu musibatu aadama bi an yusaaba fi diinihi faktaluwul gaañuwul dara jotu ko mu ne fekk la ko dala gën a garaaw ndax musibam ci diineem la ko yàlla yare qaala ibnu ataillahi qad takunu uqubatuhu qaswatan fi qalbi ibnu ataillahi firi ko ne mën naa am ki def loolu te fekk dara jotu ko ma nga wér ma ngay canang-cata ngi yàlla nekk li mu ko nattoo mooy xolom bi dafa wow fi mu ne dara fonkatul dara ci diine muy benn qaswatul qalbi aha aw jumuunan fi aynihi wala mu doon bokk ñooñu nga xam ne dootuñ jooy mukk ngir yàlla waaw aw taawiqan an taati wala bokk wala yàlla nattoo ko bu ñëpp buuree jëm ci gëm yàlla jaamu yàlla moom dina am daal lu ko gàllankoor aw wuquan fi masiyati yi wa yàlla natt ko ngir loole mu def natt ko ñëw xiir ko ci muy mooy yàlla rek wala iyaazu billahi wa qaala ibnu ataillahi fi lataif lminan wasiyatan wa irshadan ibnu ataillahi ma ngay dénkaani ma ngay orienté ne iyaaka ayuha al axu أن تصغي إلى الواقعين في هذه الطائفة والمستهزئين لئلا تسقط من عين الله وتستوجب المقت min allah nee na eh li ma leen di dénk mooy yow suma mbokk mbokk moom doon waxat ne ko boo déggee ñuy jëwal yi di wax ci ñoom bu ci bokk mbooloo mi taayifatu bi ñi leen di yëjji di leen mokke bu ci bokk ndax yàlla musal la ci suquut min aynillah mooy ko xam ne yàlla xoolatu ko te itam loolu tastajibul maqta dafay tax yàlla sànj la yàlla mere la fa in haulai alqawma jalasu maa allahi ala xaqiqati sidq wal ixlaasi wa ixlaasi alwafaai wa muraqabati anfaasi maa allahi mu ne ko gis nga ñii te ñii nga gis yi tayfatu bii ñoom yàllaa leen may bu nit ñi amee ay chaise ak i tapis ñoom ñi ngi toog ci sit ku dëggu ak yàlla ixlaas sellal seen diggante ak yàlla ixlaasul wafaay bañ matale colère am fidélité dafa sell wa muraqabatul anfas nokki buñ nokki ñi ngi seen ndax war nañ koo jëmale fa mu jëm ma allahi xat sallamu qiyaadahum ilayhi seen nos jëbbal nañ ko yàlla yàllay omat du ñoom wa alqaw anfusahum salaman bayna yadayhi ñoom ñëpp ku ci nekk dem nga góor ci kanam yàlla boo leen di tàppaat sa affaire la yaag yàlla ba léegi sax fii yow ku la toppatoo da ngay bàyyi xale yi di ko font wa tarakul intisaara li anfusihim bàyyi nañ fayu xam nga duñ fayu ñaari suuf yi taxaw nañ ci benn mbedd xaw ma basra la xaw ma baxda ñu ngi ci yàlla benn waaye bu mën a tooñ ñu naan alkaati de lam do alkaati taxaw tooñkat tooñkat rek la ñëw rek ne fuuf kaaba kenn ka kooku faale ko mi ngi wax a kii boo demee ñu ngi wax ci zaato ak asmaaw yooyu taluñ ko sax waaye ko fayul daf koy tax ak kii mu mbéjaat ko ba mu xàccee troisième ba nag rek paralysie yi dal ko waaye mooy kat-kat yi ki muy waxal nag ne ko yow miskin mi moo la jaral fayu jàpp na ne kii nag ci li ko yàlla may ci martaba moo koo kii mu ne ko giñ naa ci yàlla ne fayuma waaye bul fàtte ne lex bi moomuma ko man mënumaa defar lex dafa ñëw ci alali jàmbur fekk ko fi mu ñëwaat fekk ko fi mu ñëw ñetteel fekk ko fi loolu kay tumurankewul sàcc ñaari yoon fekk ko fa borom nga ñëw ñetteel ba fekk ko fa loolu kay xam jara seet la hmm, hmm, hmm. ñoom bàyyi nañ fayeeku tarakul intisaara li anfusihim xayaan min rububiyatihi lahum bi yàlla ne mooy rabbul aalamiina kenn ñëw ñuy aalam waa tooñ leen ñoon ñu toll fañ toll ci yàlla yëg ko rus nañoo fayu dañuy bàyyi yàlla rek su jéggalee waa ji jaamam la in tuadibhum fa innahum ibaaduka wa in taghfir lahum innaka mais ñoom duñ ñu tooñ na leen ci nit yàlla yi musiba dal la fekk fayuwuñ waaye nag wax dëgg yàlla ku ëppal yow yaa xam waktafaw bi qayyumiyatihi fa qaama lahum bi aw ma yaquum bi anfusihim déglu ko nag déglu ko nag mu ne xam nga yàlla nee na mooy qayyoomu xam nga qayyoomu yu bëri xalaatuñ ci baat bi tëggin beeg yooyu ci qaama ak xiyaama la jóge mais qayyoomu nag tëgg googu ci arab ba ko yàlla moomale boppam bam bam taxawee lépp faf taxawee ci moom ñoom nag ñu ñu woccee yàlla xayumeetu yàlla ga yàlla na taxawee seen mbir ku leen di fontoo yàlla lay toppatoo fa qaama lahum bi awfa maa yaqumuuna bihi li anfusihim bu dara xew yàlla taxawal leen lu ñu mënta taxawal seen bopp wa kaana huwa almuhaariba anhum liman xaarabahum su booba yàllaay xeex ku bëgg xeex ak ñoom mooy borom mbéj moo ma doon nettali wal xaalibu wal xaaliba liman xaalabahum kuy gay kuy notanteeg ñoom yàlla ngay notanteel ولقد ابتلى ولقد ابتلى الله تعالى هذه الطائفة بالخلق خصوصا أهل علم ظاهر loolu tubaranke na waaye mooy dëgg nee na mbooloo mii may wax nit yàlla yii cheikh yii suufiya yii arifina yii yàlla dafa nattu dafa leen a nattoo ñenn ñoo xam ne seen du ko woon sax masalan ku jàng ilmu zahir ba ne xar xam nga xuslu xam nga xuslu janabati xam nga tahaaratu xam nga salaatu xam nga nangam xam nga nangam waaye nag la Ghazali waxoon ba mu demee ba raw ñëpp mu ne fi ma toll nii su ma waxee dëgg lii ma ni ma mel nii jarutoon jàng tanewuma kenn maa fi gën a rëylu fu ma dem su ma seyoon ñëpp dañuy effacé man keneen feeñ man lii man lii lii daal bu dee lii daal jaru ko moo tax mu dem uti sëriñ xam xam xam wërsëg la waaw mais nag wax dëgg yàlla xam-xam wasiila la am na ku tuub léegi yonent ne ko misqaala daratin xayran misqaala daratin charran ba bu ko waxee rek waa ñu ne ko balance bi peese du du bàyyi sax zarr maanaam zarr ci ñun mooy atome yonent na ko déere mën na ko doy na waaye da ngay dem yonent ne aflaha in sadaq ah kii texe na kon nag ah, ahlu ilmi zahir mu ci ñu yàlla nattoo nit yàlla yi ci lañ ab aalim ab faqiihu borom xam-xam di sonal wal ah, fa qalla an tajida minhum man sharaha allahu sadrahu li tasdiqi bi waliyin muayyan c'est très rare déglu bu baax nga fekk aalimu kese bu yàlla mayu li may gaa ñi mu dëggal ab waliyu bu ñu ràññeel diw waaw mu ne loolu jafe na bal yaqulu laka naam naalamu anna al awliyaa mawjuduuna walakin ayna hum mu ne li la aalim bay wax dal ji nga mu ne d'accord ñun xam nañ sax waliyu am na waaye anañu il est dafa mel ni ñi ma xam lay wax quoi bal yaqulu laka naam naalamu an al awliya mawjuduna walakin ayna hum fala tadkuru lahu ahadan illa wa axada yadfau xususiyat allahi fii koo tudd rek mu jéemal lay wan la ne noono kooku du dara moom ñu cee ko am cee ko day dàq wilaaya ci nit ku war oto bu rafet kii nit yàlla dana war oto bu rafet de donc loolu loolu du lay de bal yaqul laka naam naalamu anna al awliyaa mawjuduuna walakin ayna hum fala tazkuru lahu ahadan illa wa axada yadfau xususiyat allahi fii kii du dara talqa lisaan mu ne moo fii gën a fasaan ak di wax rek di daggat rek bil ixtijaaji aariyan min wujudi nuuri tasdiq gën fee bëri wax nag fekk boo ko seetee dafa rafle mais du mbubb leer ak dëggal nit yàlla yi moom la moom la solut boo gisoon baatinam nit la ku solul mbubb la ilaha illallah hmm. mimman haada wasfuhu mu ne moytandikul képp koo xam ne noonu la mel de wa firra minhu firaaraka min al asad nit ku jàng ba pare te sey noon daal mooy waliyu yàlla yi nee na ni ngay dawee gaynde na nga ko dawee waa jooju hmm? ja'alana allahu wa iyyaka min almusaddiqina bi awliyaihi bi mannihi wa karamihi innahu ala kulli shay'in qadir inta mu ne yàlla nañu yàlla def ñun ñëpp ñu bokk ci ñi dëggal waliyoom yi te loolu xéwal la gu yàllay teralee nit yàlla nañu ci boole wa dakara saahibu rimaahi almashhuudu lahu bitabaxuri fi ilmay shariati walxaqiqati wa tabrizi fihima atama tabrizi ma nasuhu xool na mbàkke si xawa tuuti mu ne borom rimaaxu moom itam nana ci ci lii ñuy wax ci linkaar waaye ba muy laatu wax li wax mu ne ki nga xam ne ñépp ko seedeel ne dafa géeju ci ñaari xam-xami sharia ak xaqiqa raw raw gu ràññeeku mu jiitu ko mu baris bëris léegi ci université yi bees mu agrégé mooy mu bëris waaw jiitu ñépp ci sharia ak xaqiqa nee na moo wax lii wa min qabaixi al inkaari ala al awliyaai an al munkirina muxtafuuna athar al yahudi mu mushrikina wal munafiqin Cheikh Omar Fouti nee na ci rimaax bokk na ci mbon gi nekk ci linkaar waliyu mooy linkaarkat yi ñoom dafa am yoon wuñ jaar dafa am ñu ñuy roy ñu ñooy mu ne mooy yahudi yàlla ci gëmuñ ko comme ñoom Abu Jahl na ñooñu ak munaafiqe ne yi ne gëm nañ fekk dañuy fen nee na ñooñu lañ topp seen yoon Cheikh Omar ko wax wa wa wa fala shakka anna bi misli ma aaqabahum bihi li ittisaafihim bi sifatihim mu ne kon nag évidemment na yàllay mbugalee ñooñee noonu lay mbugalee ñi parce que ñoog ñooma bokk melo wa minha ithaaruhum suxbat alfasaqati alfajarati min alusaati almuxaalifin almuaanidin bokk na ci tegtal yim xàmme moom Cheikh Omar ci ñiy inkaar waliyu yi mu ne ànd ak faasiq ànd ak nit koo xam ne faalewul yàlla ànd ak kuy moy di uuteeg yàlla te du ko nëbb moo leen gënal sax ànd ak waliyu wa minha annahum yaquluuna inna alladi alayhi almuluku wa dalamatu acwaanuhum huwa diinu alqayim wa siraatu almustaqim wa ma li ulamaau alaxirati walkiraamu albarara alladina yaddacuun yadcuuna rabbahum bilgadaati walcashi yuriduuna wajhahu huwa altariqu almuwajju saqim mu ne xoolal seen logique ba nam dëngee mu ne bokk na ci seen yu bon yi seen xabaa'ix yi ne dañu naan li buur yañ nekkal ak tooñkat yi ak ña leen cee dimbale loolu mooy diine dëgg-dëgg mooy siraatul mustaqim ulamaul axirat nag ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel yàlla nee na ñooñu ñu tedd ñooñu ñu sell ñooñu ñiy ñaan yàlla di ko tudd guddeeg bëccëg coxlo lu mooy jëmmam ja loolu mooy yoon wu dëng wi loolu itam jikko ju bàyyi ñi baax ñëw ci ñi bon wa yazumuuna annama alayhi ahlul awaidi damimati والبدع القبيحة التي توارث توارثها من كان في الضلال القديم هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه الصميم dañuy dem ba nga xam ne ñoom ñi ñuy présenté mooy aada yu yàgg yi nga xam ne ñu ñàkk fayda ñu dëng ñi ñoo ci nekkoon dañoo bëgg ñu ne loolu mooy li yonent nekkoon ci dañuy oo ñoom nit ñi wa min haddaa ul udaal mu ne nag bokk na ci seen xabaa'ix yi yu bon yi nga xam ne moo nekk ci munkiri ni muy wax feebar bu mag bi nag feebar bu naqaree faj bi alladi sadda al yahuud an ittibaai sayidi al wujud feebar bi taxoon yahuud yi nanguñoo topp yonent bi kii sangab lu yàlla bind sallallahu alayhi li xaw fi suquut riyaasatihim ragaloon ne bu yonent yëkkati koo ñoom ñu daanu su fooree kenn du leen faaleeti ñoo jiitu woon dootuñ jiitu ndax bu yonent ñëwee rek tekkeetuñ dara mu ne nga ko luy lool mu ne wa huwal xasadu mooy kiñaan ñaari linkaar mu ne am na munkir boo xam ne moom dafay ñaan qaala taala am yaxsuduuna annaasa ala ma aatahum allahu min fadlihi yàlla ngi wax xanaa ñii nit ñi li leen yàlla may ci ngëneelam te xam nga yàlla ba muy may nit ngëneelam mën na am waa ji ñaan na mën na am ñaanut te xam naa yàlla mën naa tànn nag Mm-hmm. Mm-hmm. wa qaala alam tara ila alladina utu nasiban ba aaya ja jeex yépp ki ñaan la ci yahudi yi te amal kalaama hada alxutbi alfuuti aljalil bàyyi lay wax mu ne settantal nag réfléchir ci xutb bii dëkk fuuta Cheikh Omar Fuuti mii bu màgg mii xalaatal ci waxam ji tarahu kashafa ahwal munkirina da nga gis ne de maanaam muri na ñori na malaan yi munkiri yi doon jéem a nëbboo pot bu ñu leen xam najjaana allahu min balwaahum yal nañu yàlla musal ci seen nattu am na téere buñ naan bahrul mawruud dafa ne uxida alayna al ahdu aw al uhud an laa nukadiba alsaalihiina ida axbaruna bi cheyin tuxiiluhu uquluna mu ne yàlla ak jàngaley diine si naag ñun pacte ne saalihiina yi waxtu wu ñu informé xabaar ñu ci loo xam ne suñ xel yi rek nanguwu ko buñ ko weddi illa ida aarada nassan charciyan lu muy nag loolee doon lu contre benn texte charia bu amul taawil wa dalika li anna gaayata alwaxidi minhum an yuxbirana an alqudrata alilahiyata faalat mumkinan laa gayru coow li nga dégg yépp nit yàlla yi waxuñ lu may kattanal yàlla yi kattanal yàlla ji réalisé na loo xam ne lu mën a am la hmm. képp wa fi lyawaqit wal jawahir bu chaaraani ba tey qaala cheikhu lislam almaxzumi la yajuuzu li aalimin an yunkira ala suufiyin illa ida salaka tariqahum wa raahum xaalafu sunna Cha'raani wax na ne cheikhul islaam al maxzuumi ne na boroom xam-xam kese nii rek daganut jaaduwul muy linkaar ab suufiyanke lu mooy su duggee ca yoonu suufiyanke ba nekk pratiquer ko gis ne uute sunna waaye nag gaañi nii ay on yooyu yooyu moo baaxul wala yasuugu lahu al inkaaru alayhim xata yaarifa sabina amran jàngkat bu tëb rek gis ab suufi ab saalixu ab saalik nga di ko weddi mu ne sax d'accord waaye nag foog war ngaa goreel juróom ñaar fukki mbir xam ko juróom ñaar fukki mbir mu may la kon peut-être nga mën a linkaar benn ba mooy nga xam seen concept yi maarifatu istilaax yi ndax ñu ne dañuy am istilaax nga xam bu ñu waxee tëjalli addaat yi luñ ci jublu tëjalli suur yi luñ ci jublu lan mooy farq diggante xadaraat yi nga xam luñ ci jublu farqu bayn al ahadiya wal waahidiya nga xam luñ ci jublu maarifatu sirri zuhur mbóotam feeñ nga xam buñ ko waxee lu ci jublu al butun xam luñ ci jublu azal ak ëbët nga xam luñ ci jublu aalamul xay bi nga xam buñ ko waxee luñ ci jublu baatab kawnu ñoom am na lu ñu ci jublu lan la shahaada nga xam ko shawq luñ ci jublu mooy fii ñun ci ñun rek nameel ilmul maahiyati xam-xam bi aju ci identité tam jëm ci yàlla suñ ko waxee ñoom luñ ci jublu luy huuyee ci ñoom sukkur kii firi mandi luñ ci jublu mahabbati cofeel est-ce que mooy gi gaa yi nekk ci baar yi wala leneen lañ ci jublu ñoom wa man huwa saadiqu fi sukuri ak ñoom ki wax ne moom màndi te màndi nga dëgg ci moom luñ ci jublu bañ mun koo jéggal wal kaadibu xata yu axaza wa xayruhu wa ak ku ne dama màndi ci yàlla fekk waxul dëgg noo koy xàmmee mu ne ba mu jeex juróom-ñaar fukki thème yu demee noonu nga goreel ko doona mun seet ndax waa xam nga lu ma koy misaale benn waay la boo xam ne dafa ne Paris lay jànge arab du dem ci benn sëriñ te du jàng naxu day jàng mufradaat yi te téere bu ñu jox mu firi ko suñu bisee mu daaroog diplôme fekk gaa yaa ngi ci ci ëlfiye soreeguñ sax wa kullu xarfin mustaxiqun lil binaa wal aslu fi lmabniyi an yusakkana wa min zufatin wa zukasin mu ne di dégg olof lool <laughs> mu ne xam nga bi binaawoo xarfoog yëpp dafa am lu muy firi ci naxwu ak lu muy firi ci luxa hmm? mu ne wa kullu xarfin gépp madd te mooy gëléem gu mag xam naa kilifa lañ ci jublu te xarf mooy xarf moom mustaxiqun aji yàlla wala binaa ci ñu tabax ko kër kilifa day am kër <laughs> wal asu cosaan nag fil mabni ci lu ñu xas tabax anu sakkana mooy bu dëkk lee foofu xanaa kenn du tabax bàyyi ko ci ngelaw gaa yi ne patt wa minhu bokk na ci yiñ tabax nag su fatxin borom ak ubbi am na néeg yuñ ubbi wasu kasir ak néeg boom ay toj te ñu ne ko doy na nag <laughs> li nga tojagu